ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si nga mooy li nga xamante ne mooy mbaraarum kiir lay mu ngir ñu yëkkati ko ci biir loolu ñoom 17 yi 15 yi voté nañ ko deux yi nga xam ñoo nekk ci opposition man ak yaay maam Albis dañoo voté ma majorité bi jàllale na bi ñu paree itam amal nañ conférence des présidents conférence des président boobu bi ñu ko amalee li nga xamante ne mooy date yi nga xam ne jàpp nañu ko mooy le 15 danañu amal commission des lois pour mën a taxawal commission ad hoc bi nga xamante ne fukki nit ak benn lay doon fukki nit ak benn yooyu juróom-ñett yi ci majorité bi la ñu bokk ñaar yi ñooy bokk ci sama groupe benn bi nekk non loolu mooy li nga xamante ne am na fa le 17 la ñu war a amal plénière boo xam ne mooy def mooy ratifier li nga xamante ne taxawal nañ ko muy commission ad boobu. Mm-hmm. bu boobaa nag la cay topp mooy déglu ki nga xamante ne ñoom dañ ko tuumaal muy suñu collègue Ousmane Sonko. loolu yi tamit yoon may na ko buy ñëw mu ànd ak avocat boo xam ne ci <coughs> maanaam député lay doon wala bu fekkee amul avocat boo xam ne député la. moo ànd ak député boo xamante ne mooy nekk avocat jàppale ko loolu mooy li nga xamante ne moom lañ tënk foofu la foofu yi tamit euh, président Moustapha ci réunion de bureau euh, ñetti leetar la ñu indi ndax lettre ministre garde des sceaux ministre de la justice moom la ñu indil ànd ak lettre procureur ak lettre six euh, d'instruction bu tribunal hors classe de Dakar ñetti lettre yooyu la boole indil ñu mais indiluñu benn document boo xam ne nun gis nañu ko boo xamante mën nañ ci teg suñ loxo lu may ñetti lettre rek ca lettre yi da koo liir joxuñu ko ndax dañu jàpp ne lu mel noonu su ñëw waroon naa mën a ànd ak rapport maanaam PV enquête bi nga xamante ne moom na Euh, section de recherche gendarmerie def waroon na ca ànd ndax ñoom ñett ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk muy garde des sceaux procureur ak justice euh, kenn ku ne am na ko kon normalement lu toll ni assemblée nationale waroon nañ koo mën a am pour ñu xam nu bu ñuy wax li ñuy wax fu ñu koy teg wala lii la wala laa lii rek la ñuy indi c'est clair waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ko gisandoo noonu Cheikh Abdou li xew rek laa leen di wax amal nañu ah? amal nañu réunion de bureau tey réunion de bureau bi 17 membres ñoo teew 17 membres yooyu deux ñoo ko voté wul yi dañu ko voté jàllale nañ bi ñu paree amal nañ conférence des présidents conférence de présidents bi jàpp nañu date pour amal commission bi commission bi ñu ko war a amal la 15 ci la ñuy taxawalee commission d' ad bi nga xamante ne ni moom 11 membres lay doon 11 membres yooyu 8 yi majorité lay doon 2 yi ci sama groupe lay bokk benn bi non inscrit lay doon. loolu nag suñu ko tànnee ci la ñuy amalee plénière boo xam da koy dëggal plénière boobu it mi ngi war a am la 17. su ko defee nag la cay topp mooy déglu ki nga xamante ne mooy président Ousmane am na sañ-sañu ñëw su ko neexee am na sañ-sañu bu ko neexee am na sañ-sañu buy ñëwit ànd ak koo xamante ne avocat lay doon boo xamante ne day nekk député wala baa boog ab boo xamante ne dañoo ànd ak moom nekk comme avocat loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënkee foofu li nga xamante ne tamit mooy euh, euh, président Niass wunuñu leen loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo wala suñu suñu tànk parce que li wér ci mooy ñetti leetar la ñu indil muy lettre ministre de la justice garde des Sceaux boo xamante ne mi ngi ànd ak lettre procureur ak lettre six d'instruction tribunal hors classe de Dakar ñetti lettre yooyu lañu boole liir ko ci suñu kanam ne ci la sukkandiku pour war a mën amal euh, lever immunité parlementaire bu Sow loolu nag ba mu amee ñun opposition bi voté wuñu ko ñaari député lañ fa woon man ak yaay maam Albis bu bokk gis-gis vice président assemblée nationale 15 yi dañu ko voté jàllale ci biir loolu yi tamit li nga xamante ne mooy leetar bi nga xam avocat yu Sonko dañ ko bindoon bi ñu ko ci laajeet la mu wax mooy waruñ ko ko woon a bind ña ñu ko waroon a bind mooy procureur wala garde des sceaux wala juge d'instruction mais moom du moom mooy jël yooyu moom mooy recevoir yooyu leetar ba tax na leetar boobu moom nan du ci tontu daal loolu mooy li nga xam moo fa tënkee moo fa tënkoo wasalaamaaleykum wa rahmatullah